mbokki Sénégal jigéen ñi bëgg lu baax bëgg style bëgg mode laa bëgg a waxal yéen ñi bëgg fu ngeen defaroo ba génn ñu validé daw leen gaaw seeti fas yéen Baye Collé Laye gérante ba di wóyoo ci turu Collé Laye madame bay nekkee ci VDN côté supermarché exclusif di yëngu ci lépp luy taaral jigéen ma ne mbokk yi produit greffage yi yéen a ko doon laaj cheveux naturel yu baax yu gudd yi yéen a ko doon laaj dama ne seen njàqare jeex na ndax Collé Laye da leen di defal leen kenn mënta defal bu ngeen bëggee escroquerie plaquage greffage wala ngeen seen i greffage bu

clôture nag mbokk yi moo ci teg loxo di ngeen fa fekk ay trois di ngeen fa fekk ay kim ak ay frontal lépp ngir dab seen bànneex longooru greffage yeeg périg yi nag mbokk yi am na ci li ko dalee ci 10 ba ci 42 bu dee da di bañ ku leen nax nag ci greffage ak ci périg ci mbooleem produit yi ñuy def ci greffage saa yu ngeen demee ci moom mën na leen a li gën ci yéen elle disponible ngeen mën ko woo ak Kolle laay madame Mbaye ku fi ñaaw Serigne ci yow kon nag fas yéen bàyyi ko lelaay ku ko seet si seet si sa njariñ. My baby got me for life, for saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa ba léegi coowal CNG ba kan moo ko war a jiite kan la ñu am yaakaar ci moom kan la ñu jàpp ne mën naa jiite bile structure xel yépp dem ci Mohamed Ndao Tyson Mike ay fan a ngi nii saay sunu làmb xëyee fësal kenn ca wu njëkk ba laaj ko ana kan nga am yaakaar mbooleem ñu fi jot a jaar ka ñu ëpp la ñuy tànn mooy Mohamed Ndao Tyson moom Khadim Gadiaga président écurie Rock Énergie wute naag gaaya wute yore ko benn célébrité képp ko war a mën a yor il ne suffit pas d'être quelqu'un de célèbre pour diriger le CNG jiite bopp CNG bi laaju tur wu rëy laaju ñépp xam la li ñu soxla du nit ku célèbre waaye nit ku am dialogue waaye nit ku mën a dialoguer Tyson mii ñuy wax damaa bëgg ñu bàyyi seen xel ne ba mu tekkee ngémbam la bàyyi lam ci ay lijjanteem la nekk ci am la nekk lijjantiwul kenn bi nu koy tab di ko boole ci comité élargi bi la commencé jege lamb tuuti bu fekkoon ne yàgg naa bëgg a jiite CNG day jege axlu lamb gis ko waaye bàyyi ba tey mu ñëw bëgg a bopp CNG loolu mënul nekk la am ba des mooy ka koy ko du jiite kenn xamagu ko Alioune Sarr dana fi jógeem du fi jóge kenn xamagu ko ki war a jël ay décision wàcc Alioune Sarr mu tegaat ko ci bopp bi le CNG mooy le ministre Matar Ba waaye bu ñu sukkandikoo ca la ñu nasoon ci ndëpp ma amoon le 20 ak le 21 octobre en 2018 ba axlu lamb dajee ci arène nationale waxtaane lamb ji waxtaane fan lañ ko jëmee la fa nasoon mooy installation d'une fédération en 2023 ñu ngi ci ñu dem ci dee dafay jóge ñetti at képp la fiy toog wala bu toogaat li am ba des mooy bu ñu respecté mbir ma ñu waxoon en 2018 2023 war nañoo tegub fédération ka wax la mu waxoon ca l'observateur ca respecté ko mooy Gris Bordeaux la mu xamle woon ci bile journal mooy damay delloo Gaston Mbengue 10 millions mën libre waaye boobee ba léegi moom Gris Bordeaux Gaston gisu ko déggu ko tegu ko bët Gris Bordeaux la mu waxoon ca delloo xaalis ba léegi kenn déggagu ko ca kenn gisagu ko Gaston Mbengue ma war a jot xaalis ba jotul liquide jotul laaj ba nekk mooy Gris lan lay xaar ngir delloo xaalisu Gaston Mbengue ba da ko doon teg pression ngir mu yokk loxoom moom li am ba des mooy Gris ba mu waxee ne day delloo xaalis ba ak léegi def na juróomi fan tànka delloo gu ko nag nanu jàpp ne digganteem ak Balla Gaye yàqoogul Papa ma digganteem ak écurie yàqu moo xëy ci sunu lamb di wax ci carrière moom le piment de Jambar Academy wax na ci li naroon a yàq carrière la mu xamle mooy depuis man Papa dama doon wax naan 2020 laa bëgg a arrêté sama carrière as ñu fixel di 45 ans man ñaanu ma yàlla saison ba mu ñëwee ci combat mag Siteu la mu xam le mooy xaalis bi ma yoroon yépp dépensé naa ko dërëm bi gën a tuuti bu ñu fëggoon samay poste duñ ko ci fekk da bile combat nag bëgguma ci àddu tànk pa Abdou waxu ci dara moom promoteur bi taxawal bile combat bu génnee ba def sorti ba noppi may doog a def sorti fa nuy jeexale mooy ci écurie Rebeuss ak seen bilan bile écurie 10 combat def 6 victoire 4 défaite loolee moo waral journal ba xëy ni Rebeuss sous haute tension bile écurie ña fa cartonné mooy double moteur bëreewul zal bawul bëreewul seen six victoire ya Tidiane Faye moo daan réparé junior réparé junior bu Papa Kane Ngaale Déranger moo daan Zarko 2 bu Ndagou Gueye Mamadi Diouf 2 moo daan Guy gi 2 bu Bosco Sow Caatu Mbombaay moo daan Pape Thiam junior bu Papa Kane Gams Boy moo daan Alliance bu Fass Caatu Rëbës moo daan Alliance Baldé bu Abim Ndiaye seen quatre défaites ya l'enfant bu Kër Baaba moo daan Ama bu Rëbës Reenu Guy bu Géejawaay ca suñuy ténor bëriwunu nanu yokku cere doolli ñeex te xam ne léppay ñëw jërë ngeen jëf mbokk yi li moo li gën a fës ci yéenekaay bi ñu leen jox dig daje ba ëllëg incha allah Sénégal jigéen ñi bëgg lu baax bëgg style bëgg mode laa bëgg a waxal yéen ñi bëgg fu ngeen defaroo ba génn ñu validé daw leen gaaw seeti fas fashion by Collé Laye gérante ba di woyo ci turu Collé Laye madame Mbaye nekk ci VDN côté supermarché exclusif di yëngu ci lépp luy taaral jigéen ma ne mbokk yi produit greffage yi yéen a ko doon laaj cheveux naturel yu baax yu gudd yéen a ko doon laaj dama ne seen njàqare jeex na ndax Collé laay la leen di defal lu leen kenn mënta defal bu ngeen bëggee escrie placage greffage wala ngeen bëgg sérum yi nuy traité seen i greffage ba mu rafet muy sérum red wala ngeen bëgg ay pour defar seen i bu ngeen yegsee ci fas yéen bàyyi Collé laay seen xol set bu dee yéen a yor seen greffage leen gaaw da koy defal ci njëg yu xéewal bu ko jàppee ko ngeen jàpp ne lu bees la bu dee a bëgg greffage bi ngeen fii fekk ngeen bëgg ay accessoire ngir defar seen i peñe yaa ngi fii accessoire yaa ngi fii ak mbooleem xeeti accessoire yi ngeen di soxla bu dee ay perruque ngeen soxla mbokk yi wala ay greffage am nañu ay boule perruque am ay importé ci longueur boo mën di bëgg ak couleur boo mën di bëgg bu dee ci wàllu closure nag mbokk yi moo ci teg loxo di fa fekk ay trois raies fa fekk ay kim ak ay frontal lépp ngir dab seen bànneex longooru da greffage saa yu ngeen demee ci moom mën na leen a li gën ci yéen elle est disponible 24 heures sur 24 ngeen mën ko woo ak Kolle laay madame Mbaye ku fi ñaaw ci yow la ak Kolle laay madame Mbaye ku fi nax ci greffage yow la ak Kolle laay madame Mbaye ku xamul produit bi gën ci sa greffage rek ci yow la kon nag fas yéen bàyyi Kolle ku ko seet si seet si sa njëriñ. My baby got me for life,